siyaare Sëriñ Tuubaa war a am positif war a nammaat sa positif war xam ki ngay fekk si lu mu doon foo koo xam ne ñoo ko njëkkee xam ku ma sa dugg ci dëkk bi da nga summi say dàll waaye nga dugg ci jumaa ji amoo benn xemmem teef lu may fatoo génn ci biti loolu du positif du dara ndax sa bopp képp la nit nag bu lu yaakaar yaakaar ca jëriñu ëllëg waru ko foyee nit du du yaakaar du foyee yaakaaram la Cheikh Mamadou Farid daa wax